mbokk yi sëriñ baa ngi leen di tàgge Seyda Mariam Niass mu bàyyi Niass radiyallahu na boroom ca Ndakaaru waxtu wu ñu koy jébbal boroomam fii ci Medina dinañ leen ko wax mbokk yi sëriñ ba leen di tàggee Seyda Mariama Ñas mu Baay Ñas radiyallahu anhu uñu na boroomam ca Ndakaaru waxtu wuñ koy jëbbal boroomam dinañ leen ko wax yal na ko yàlla yërëm yokk yi leeram te yërëm ñu bañ ñu des fi di ko ñaanal ci barke Baay radiyallaahu anhu